ñu yónnu ñu nag ti mooy alluña saqaafiya bu koskaas ci ndigalal sëriñ bi ñu ne ñu Ahmed Sarr bu ngeen demee ba Mbàkke xuulu li naase ñoom waa Mbàkke xos nan wax fa wax ju rafet ñun lañ ko njëkk wax ñun waaja dañ ko wax loo waa dëkk ba yónni ko mu jàngi mooy doon seen yaakaar nag ndekkete at yëpp jàng yëpp jàngu fa dara lu dul kàrt ak dam yee mu ñibbisi ñu nañ ko jox mu conférence lu ñu dajale mbooloo mu toll ni mbooloo mbàkke mi jox ko rajo yi mu afole te ñoo ngi ko solal kaala garaam bu mu ne xam ngeen li may bëgg a wax ñépp ni déedéet mu ni ku xamul du ma wax ak moom dem leen ba déwén ñu ni jàng ya tas na ah ñu ni comme nee nañ dem ba déwén nañ dem ba déwén ca déwén nga ñu ñu organiser waat gàmm gu gën a rey gu njëkk ga préparé ko àndi ko ñu xëy na daawul dafa meroon ñu jox ko rajo ba mu toog ni xam ngeen li may bëgg wax comme néewoo nañ déedéet mu ni dem leen ba déwén ñëpp ni waaw mu ni xam ba pare jaratul may wax ak moom dem leen ba déwén ca déwén nga mu dellu suñ ñu sololaat ko yére ni nag comme daaw jéeg déet la woon daaw waaw la woon ren na ñii ni waaw ñii ni déet mu toog ne xam ngeen li may bëgg a wax ñii ni waaw ñii ni déet mu ne ñi xam nañ xamal ñi xamul ba déwén wax nag dañ koo fekk muy jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne ku ma warta waxa ma wax ñu fekkaat ko muy jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ni dañ maa wax fuñ ma warta waxe ñu fekkaat wax muy jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne dañ ma wax nuñ ma warta wax kalaam mooy wax waaye kalaam ci naxu bokkut ak kalaam ci luxa bokkut ak kalaam ci fiq bokkut ak kalaam ci usul bokkut ak kalaam ci mantiq fiq boo génnee ñaari araf kalaam la sa julli day naxu tànk nekkul lafzun mufiidun murakkabun bil wadaci tuddagul kalaam ci luxa kalam tere tere dana nekk kalam mooy sens interdit nga ñëw ci koñ fekk fab tableau ñu bind ca sens interdit waxul de waaye wan wax na la ni fii waroo fee jaar te doo fa jaar it nag moom la borom bitig bi yor teg balance am teg ci ñaari poids bu nattee mu libre ba tolloo du la wax ni mukk moom balance bi du la wax ni mat na de déedéet waaye di nga xam ni mat na moo tax boo demee ci majaanil adam daf lay laaj procureur boo xam ni mooy àtte nit ñi te dafa muuma dafa gumba dafa tëx te kum àtte nga nangu ku xam procureur boobu ñëwal wax ñu ko ñëpp gàkk mu ne mooy balance balance ay àtte waaye du dégg du wax du gis te kum àtte boo nga nangu da ngay jël rek dem jaama libaru suukar bu la ko tegalee ba teggi dangay ngay jël rek def sa saak dem waaye doo fa nekk yoo xaar wax yàlla wutal ko fu muy génne muy làmmiñ liir bu juddoo du wax waaye làmmiñ dana jouer rôle bu tax nit ñi seen xel dal liir bu juddoo tànk jooyul daañ ko dóor ba mu jooy ñu xam ne jàmm am na su joowul ñu ne dafa dellu waaye yàlla nee na bala ma koo bàyyi mu wax nag yow mi ko jur danaa ko bàyyi ci say pooj ay jamono ba balaa wax li muy wax ñu seet lan la ndax bu ma la ko joxee mu wax rek dana wax lu ëpp dañ naan ba muy wax yëguma ko wala wax loowuma ko ko yàlla ni danaa téye muumaloo ko nag jox la ko uufal la ko yaral la ko paralysé ay tànkam sakk ay nokkam tëj ay bëtam ni la nag kullu mawludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yu hawidaanihi aw yu nasraanihi aw yu majisaanihi ëllëg lu mu dox te du yoon yawa lu mu wax te du yoon yawa lu mu xool te du yoon yawa nga war koo préparer làmmiñ ba balaa wax ëllëg bu mu génnee lu lu lu tojum réew yonante bi wax ni nit dana jaamu yàlla ba benn jéego tee koo dugg àjjana mu wax benn kàddu kàddu ko yóbbu ko ci safara benn kàddu mu ni nit dana def lu bon ba benn jéego tee koo dugg safara mu wax benn kàddu kàddu ko yóbbu ko àjjana téere yi ñu ngi laaj lu tax yàlla jox nit ñaari nopp jox nit benn gémmiñ te joxu ko ñaari gémmiñ ak ñaari nopp ak ñaari bët ñaari paxi bakkan lépp mu def ko ñaar gémmiñ mu def ko benn lu tax pourtant bu nit amoon gémmiñ ci lex bi am génn ci lex bi day rafet ba dee di boo waxee ci bii ba mu sonn nga awu ci bii mu wax ba sonn lu tax benn gémmiñ nag parce que nit li ma war a déglu daa war a ëpp li mu war a wax say déglu yàlla nee na maa la jox benn gémmiñ jox la ñaari nopp pour nga xam ne say déglu moo war a ëpp say wax arab yi nee nañ même dof boo ko fekkee mu toog tànk waxul doo xam ni dof la wala nit la kaa in tara min saamitin laka mujibin ziyaadatuhu aw nuqsaanuhu fi takallum boo gisee nit mu toog ni pat doo xam dof la doo xam nit la waaye bu waxee waxi dof nga ni kii man xaw mën wérul di soo waxee waxi nit nga ne ah kon kii kat ndekk boroom xam-xam la kat xam nga kañ ko ko xama bi mu addu moo tax arab yi wax ni man baaxa ku wax feeñ wala takallam tu'raf waxal ñu xam yaay kan yàlla kon mi ngi ñuy sóor ci liir bi sax bala koo bàyyi mu wax nañu seet li mu war a wax lan la nit kese nag ci yàlla bind moo mën a génne les vingt huit lettres alphabétiques kese seku dafa am luñ ko ci may moo tax yenn saa yi ci di wax mbaam ñetti araf lañ ko may h ak alif ak raa rek la mën a wax waaye pare na ci boo demee fii maarij xaqiqati wa anwaar fii anwaar sharia wa maja wa maarij xaqiqati buntu spécial lay jàngale xeetu kàddu yooyu ñuy wax kon li ñu yónni ni waqulu li naasi xusna nekkul lu simple parce que lii wa id axadna mithaqa bani israil lii waa bani israil la yàlla doon waxal te mooy laa taabuduuna illallah bu leen jaaw kurul yàlla wa bil walidayni ihsaanan ngeen jëf lu rafet jëme ci jur yi leen jur ak lan wa dil qurba fexeel ba mbokk gën a rafet ak lan wal yataama jirim yi ak lan wal masaakin néew doole ji ak lan ñépp ñi ngi ci biir de xam nga waqulu linnaasi xusnan li mu jiital moo lay wax ni wax bi dafa am fu mu jëm waqulu yéen ñi nekk ci jiitu réew yi wax leen xuulu wax leen naa si ñeel seen peuple xusnan wax ju xel mën a nangu wax ju ñu mën a dégg wax juy defar réew waquulu yéen ñi nekk ci daara yi di jàngale wax leen li naa si seen taalibe yi ngeen di jàngale dong yi xusnan wax joo xam ne bu ñu fa jógee mën a defar réew waquulu yéen jëkkër yi nekk ci kër yi wax leen li naa si ñeel seen jabar yi xusnan wax joo xam ne bu ko jabar ja déggee du am xol buy metti bu muy xeewee jëkkër waquulu yéen jabar yi wax leen li naa si ñeel seen jëkkër yi yi leen yoral seeni i teraangay kër xos na wax joo xam ne seen jëkkër du ko du ko dégg di bëgg dugg ci biir suuf waquulu yéen ñi ñu teg ci assemblée bi peuple bi tànn leen ngeen dem fay xeex ak xuloo santuñu leen ko xuloo wax leen li naa si ñeel ñi leen yónni li naa ak ñi ngeen fa teew la xos nan wax duñ mën a dégg waquulu yéen médecin yi yi ñu teg ci hôpital yi te patients yi di ñëw di néew doole feebar amuñu ordonnance yu mag ñu ñëw di leen laaj ngeen leen di jànni waxulu wax leen yéen médecins yooyu li naas ñeel malaat yi fekk si ci hôpital yi xos nan wax ju leen di wéral malaat même boo ko fajul sax waxala moom wax ju neex tubaab bala laa faj dana la raay ni la ah, piqûre bi ma lay bëgg a de dana métti de ça va de nga daani waaw mu daal di jam ndànk fii nag ngay ñëw ñu la defal ni yow si sa tubay yow bala ñu lay piqûre sax yow dee nga ba pare ndax dinga nga tiit tiit boo xam ni daanaka yow bu lay bëgg a piqûre yow léegi faatu da dugg ci hôpital gis ko yar wee ba mu gudd di ko liime nga koy wax dama fu ñuy fajee boppam la demal toog fële yàlla nee na waxuulu wax leen ñeel patient yi ñëw ci hôpital yi xos nan wax ju rafet yoo xam ne kenn du leen ci xeppal ak lii ma wax nag bu ñu ko développé waqulu yéen sëriñ si yàlla teg ci kaw yoon wax leen li naas ñeel seen taaliba yi leen yàlla booleel xusnan wax ju leen yóbbu kër yàlla yàlla boole wu jóg sëriñ si pour loo am jox leen mu jeex de yàlla responsabilité la leen jox pour ñu defar nit ñu yóbbu leen kër yàlla alaaj maa ngi nee na pour fay sax ñu jàngal leen farata la ci yow sëriñ bi fayal leen ñu jàngal leen yooyu ay responsabilité yonent bi kullukum raain wa kullu raain masulun an raayatihi kenn ku ne dañ laa sàmmloo te ku ñu sàmmloo ku nekk ëllëg daan la laaj lañ la sàmmloo woon kon ñii ma tudd ñëpp ak ñay dem ca ñoom ñoom ñooy raay yi ña ñuy waxal ñoom ñooy ñañ leen sàmmloo bu fekkee ni benn yàqu na ci yàqaale na yi ci des yëpp ba mu jeex tàkk suñu njëkkee ci soxna yee kër yi jigéen war naa am nu mu waxee boroom këram war naa am nu mu yaroo da gis jigéen bu ni jëkkëram yow de maa tax nga tekki tey ba nga ma takkagul amoo woon dara kon loo am tey yàlla ak ginnaaw yàlla ak man a nga wax ko góor mu fanaanee feebar ba suba jot xool bay tàng sëriñ bu baax daa bëgg taalibeem yar ko ci këram xëy suba may ko doomam bu jigéen waaye doom ja làmmiñ wi maara day taali taalibe bi xëy rek mënatu ko muñ mu fase ko sëriñ bi ne ko waa yow sa jabar ji lu tax nga bàyyi ko mu ne ko sëriñ man kay jërëjëf jëlal rek bàyyi rek jërëjëf sëriñ mu ne ko dig ma wax lu mu la def nag mu ne ko sëriñ baal ma àq rek man dama laa sama kilifa mu woo jabar ji mu toog sa jëkkër ji nangu la wax ji ne na jëngu ne ko sëriñ nga baal ma de sama jabar jii day yaa ko may waaye dafa am juróom-ñeenti jukko yoo xam ne benn neexuma ci mu ne ko papa day fen mu ne ko ak boobu muy fukk <laughs> waaw moom ñett juróom-ñeent la amoon mu ne ko papa day fen mu ne ko boole ju boobu muy waaw moom juróom-ñeent ko naqari woon mu bëgg koo lim mu dolli ko ca beneen waaw kooka yow yaakaar nga ni li naan sëyee na la neex jur ka la neex yàlla mayu ko kenn sëyee na neex jur ka neex yàlla mayu ko kenn benn waaye day wut liggéey ba sonn amu ko dem ci sëriñ bu mën a listixaar mu ne ko demal sa yaay mu jël yére jox ko sa papa bégale ko ko li tax mënoo am liggéey nga laaj ko ko mu dem mu ne ko sa yaay dafa mës a jël sama yére lakk ko sama xol tàng te jour boobu laa tëdd moom yow ca nga judd moo tax xamoon naa ne sa àdduna ci coono ngay dëkk waaye baal naa la bis naka tey ndax teeraa nga jëma daa xëy suba rek ñu woo ko fa muy liggéey kon waxulu li naa soxas na sa jëkkër lu metti metti la nga koy wax na rafet la koy def na rafet ndax aaya ji misaax bani israil danaa wax yonent bi ñun lan la wax ci ñun moo tax ka yàlla baaxe woon mu dem ba sonn bëgg beneen soxna xar yi ni ko lépp ci wax lay defaroo lépp ci wax lay yàqoo waxtaanal ak sa jabar rek ni ko dangaa bëgg ñaareel mu ni kon boo ko waxee mu rey ma ñu ne ko xoolal noo ko liggéeyantee rek mu ñëw ni soxna man de damaa gént biig ci guddi ñu may ma ñaareel ndaw si ne ko aha dégg naa li nga wax xëy suba joxu ko ndékk toggul añ taalul reer guddi jot mu sol ay tërënik wut kuur yóbbu ci biir néeg bi tëj delloo bunt bi def ko caabi law lawbe mooy caabi yooyu ngay wékk bant nga xam ne ka ci ginnaaw moom du ko mën a tëj ni ko nijaay loo gént mbir ci guddi muy damaa gént ñu may ma ñaareel mais jot naa koo fase ci gént gi nag avant may yeewu waaw avant may moom jot naa ko may baatam ci biir gént gi kooko kenn sant ko loola kooko xos na lañ ko sant waa jëkkër ji nag nan la war a wax jabaram moom est-ce que jigéen dañ koy toroxal jigéen ëpp naa toroxal dina indi ñam nga ni ko waaye sa togg gu bon gee nag yàlla ni déedéet waxoo leen naa suuf na Seydina Muhammad loxo musul laal jigéen musul laal bi wal kafu maa darabat unsa wala dakaran maa xaadiman aaba moo tax yonent bi wal ko fu loxo musul dóor góor musul leen jigéen waaye nag ñam yont bi saa sallam boo demee ci miim ya musul ayibal ñam boo koy ndee togg lu mu mën a mel yont bi day fàkk kanamam rek bu neexee mu dugal ñaari baaraamam su naqaree mu dugal ñaari baaraamam waaye doole ni mukk sal toggi naqareen waaye jigéen sonn ci waañ daj ci lu ne xorom sa ëpp ak lam ca daj mu dugg si rek nga toroxal ko xool sa xorom si xanaa booy xorom doo xool li ngay def jànni ko yàlla ni déedéet waqulu yow mi mooy borom kër gi waaye waxal ak sa soxna si wax joo xam ne xos na la ne ko ah waaye beneen yoon bàyyi xel xorom si ndax kat naa nangam ak nangam si lépp ci wax lay defaroo kon góor amul droit dóor jigéen sëriñ Cheikh dañ ko ne dóor ak saaga ndax ci sëy la bokk mu ne waaw ci la ngay def bañ def la ko nag moo ca bokkul nag dañ ko ndax dóor ak saaga ci sëy la bokk mu ni ca la bokk waaye la ngay def bañ def la ko looloo bokkul ci sëy moo tax ba waaj a nekk ak jabaram ca ndar di def lindamiyel ndax namm ko doomu nijaayam jóge Saalum moom ñëw rek toog ci wetam te wa ñibbi te la doon def mooy wéet ak sa soxna ndax la ko topp ñaan ko dafa yàgg te wa bu ñu añee rek mu toog moo ak jabar ñu ne xam nga nu ñu def sama nijaay mi buñ kompaloowul génnee ko kër gi du ñibbi mu ne ko bu ñuy añ rek yow tegal añ bi mu wéq bool bi rek ñu xeex xeex mu teg bool bi rek waa ji wéq ba yëpp sa bool bu bool bi xàcc loxo rek gan gi téye loxo bi jëkkëj ni ko billaahi ak ñetti ak fan benn fan bi la fi dese bàyyil ma duma ndaw si waa ni ko ak ku di yàlla bañ a doo jigéen billaahi ak at mi ma fi nar a toogaat duma la bàyyi nga di ko dóor man ko kii de moom ñibbeegul moom yow problème benn fan nga am kii moom am at la yor kon ci couple yi war nañ cee seet wax boo gisee ma sànq ma junj ishaara nag mooy waxi loxo te mooy bind bi message yi whatsapp yi am léegi boo demee bay bind te sa whatsapp na nga bind loo xam ne xos nan la parce que di nga yónnee message boo xam ne ëllëg bu dellu see ci yow sa àdduna tukki te banque de données ba muy dem xamuloo ni serveur ba ka ko moom moo la jox téléphone bi bu dee da ngay dem ci iPhone ñu ne la ay cloud ak ay cloud lu nekk ñu la koy wax ñoom ñoo wut benn bureau tijj ko ni la loo bëgg a sànni fii sànni ko fi boo ko fa sànnee bañ bëgg koo génnewaat foofu la ñuy tijjiwaat balancé ko nga naan dañoo transversé samay wax bu leen neexee la nga wax lépp Sonatel bu ngoonee ñu génnewaat kon booy bind booy yónnee message booy wax na lépp jaar yoon ndax lu tax nga bañ koo rëccu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ñuy yàqee deru gor ci làmmin boo mënee daw ay kilomètres dawal bu ko Seydi Hadj Malick bi muy bind arut dafa boole arut boo xam ni ma ngi ko tuddee ihdal xusna yey ni arut la lii tasawuf la mu ni ci côté arut zinil mizana mu ni e, bil waq zinil mizana waqta ilakihi wal ifrata wa tafrita lam yarda dul huda zinil xawla na nga mandexe sa wax waqta ilakihi jamono yo ngi koy bëgg a génnee fal ifraata wax lu ëpp wat tafrita wax lu doyadi lan yar da bégloowul zul huda xalil bu dee ci tasawuf bu dee ci tasawuf zinil xawla bu dee ci tasawuf zinil xawla sa wax ci na nga ko peese waxta ilaak yi fal ifraata wax lu ëpp wat tafri wax lu doyadi lan yar du kontaan loo zul huda seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam way ci misaanu arut basir laam kaamil laam mun sarix la lu mën a doon fal ifraata dolli tafiila wa tafrita wala wàññi tafiila lan yar du kontaan la zulhuda xalil ibnu ahmad alfarahidi bi nga xam ne moom moo taalif aruuf kon wax war nga koo teg ci balance ba xam ne balance bi war naa dem nga soo koo bàyyi fu ñuy yàqee deru gor nag te wax ja tegu ci balance dawal moo tax nit yàlla ba tëdd ba guddi ñu gént fëgg ko ni ko suba di nga génn waaye la ngay njëkk a dajeel nanga ko jël nga wann ko di nga dajeel ñaareelu mbir nag nanga nga gas kaam ba mu xóon nga suul am na ñetteelu mbir mooy dajeel na ko tinu dinga nga daj ak ñeenteelu mbir nanga ko daw mu xëy daj ak doj woo xam ni moo gën a rëy doju ngor te daj ko ni loo njëkk for na ko wann doju ngor noo koy wanne waaye muy jub doj wi doj wi ndaw ciy bëtam muy jege si doj way ndaw muy jege si ba bi muy yegsi ci doj bi mu tollook benn doomu tàndarma mu ni dañ maa waxoon na ko jël nga wann ko mu jël rek daal di wan moo tax dafa am dëkk boo xam ne dañ loo sàcc dañ la koy wann am ku sàcc ay kóoni nag di ree ñu naan kii ñàkk jom yow kóoni yi ñuy xool nuñ la ko wann looye ndeke dafa am ku sàcc ay contre plaqué <laughs> di dox di ñëw moom ndeke moom borom contre plaqué yooyu ko defi ree mu wann ko dem dajeeg benn baraado or mu gas ko suul ko baraado bi sulli ko waat ndax dañ ko ne woon ñaareelu mbir ma ngay dajeel na ko suul mu suulaat ko mu sulli ko waat mu suulaat ko mu mu ne dañ ma ne woon naa ko suul comme sulli ko waat na naa ko jéggi dem sama yoon dem ba mu yàgg benn picc naaw dal ci dënnam ni ko dimbali ma céeli bee ngay séen man la nar a lekk te dama am doom yu may nàmpali te ci soo ba léegi lekkuñu ma bëgg nga tinu ma te dañ ko ne woon ku ñëw na ko dimbali mu jël ko def ko ci suufu loxo mbubbam ceeli bi ñëw ni ko ay waay dimbali mu tas sama yaakaar ñetti fan a ngi te picc mii rek laa yaakaar te soo ma ko xañee tas sama yaakaar te yàlla bëggul ko tas yaakaar mu ni ko waaw su ma la joxee nga lekk di nga bàyyi picc mu ni ko mën naa faj sama xiif rek mu jël ci poojam dagg kuppati jël mor sa takk ba deret ji taxaw mu jox ko ko continuer aw yoonam daw ba ca kanam seen benn xaj bu médd ba njàng ca biti mu seen ko rek daw ni dañ ma ne woon ñeenteelu mbir ma ngay dajal nanga ko daw mu naafi la guddi nag ni ko yàlla ñent yi nga ma wan wan ma seen tekki ndax xam naa ni cax la mu ne ko doj wuré wa nga gisoon ma ne la nanga ko wan mooy mer mer soo meree dangay ngay jug fonk yëkkati say loxo waaye boo dalee da gis mer may rees mer may rees ba nga mën koo wanaasu mu jàll yàlla ni wal kaazimina al ghayza wal afina anin nas ñi nga xam ne bu ñu meree nëbb ko te waaye bu leen nit ñu tooñee ñu baal leen buur ba sol yére bu weex bu mel nii am ay gan kay servi bi yëkkate ñeex ma rek benn toq wadd ci kaw mbasin bi buur bi ni benn kii sama mbasin beeg li ma ci daj garde yi ñu ne xaamun ñëw leen ngeen rendi waaj kii dafa ma bëgg a toroxal garde yi di daw di ñëw ak seen i jaas ak seeni i xeej mu séen leen xam ne ñii ci moom lañ jëm si mu yëngal ñeex mi ba maase rek sotti ko ci bopp buur lii aw ci mustaas yi yii aw ci nopp yi yii ci lu ne di buur bi jug taxaw ni ko yow benn toq ñeex ma la ci rey nga may sotti bool mu ne ko dama laa bëgg am sa cofeel toqas ñeex sii boo ma ci reyee sa der da yàqu ndax dañ naan buur bu soxor la benn toq ñeex la reyee nit waaye bu ma la xëppee bool bi lépp boo ma rendee ñu ni kii moom waxuma rende waaye lu raw rende lañ ko def buur bi ni ko ah yaa rëy tooñ xam nooy baaloo jéggal naa la bàyyi leen ko mu dem kon loo mer-mer dalal soo ko wanaa soo mu jàll loo mer-mer-mer bul wax walla booy wax waxal lu rafet bëri na fi ku meroon tey buñ la vaaree danga naan kii du woon man mer wax lu ëpp saaga teg ci lu la neex ñu xëy ka nga mere woon woo la jox la poste ngay raay sa bopp naa noo sekk xam nga boobu damaa meroon rek am na ko fi doon saaga fan yee ci bitim réew lu mu wax damaa meroon ñu indi ko fii ma xaw ma fu mu mujj dégg naa mi ngi ci kaso bi sax wax dafa jar a bàyyi xel ndax dalay topp ba ci sa biir surtout suñu jamono ji nag rajo sax boo ko yoree teeyal ndax danga wax bax wax fàtte ko wax ja ñu denc ko nga xëy suba bëgg a wax ñu la ah lii kat yaa ko waxoon yàlla nag yéen yéen a tardé internet bi dafa yéex maa yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na ñaari ordinateur ñu ngi ci sa mbagg yi te yowoo ko bii raqib la tudd bii atid la noonu la yàlla mënoon a waxee ca booba jamono mais fi ñu toll nii banque de donne lay firi loo wax sa banque de données yaa ngi ko téye boo eggee ci kanam yàlla yàlla nee na al yawma naxtumu ala afwahihim tey du ma wax ak yéen seen gémmiñ yi laay tëj wa tukallimuna aydihim seen loxo yee wax ak man ak seen yi parce que xam naa ne gémmiñ lu ko wedd loo yomb kon booy wax waxal ak nit ñi xusnan wax ju rafet boo nekkee ci assemblée bi aw xeet yabal la yónni la waaye ay la yéwan ña ngay kaasal jarul saagante ndey ci biir assemblée ay xale yu ndaw di seetaan télé di gis ay mag ñu mën a jur seeni yaay di daggante ay saaga di dóorante ay kurpañ dangay ngay rus ñooñu dañ leen a war a jàngalaat yóbbu formé waat leen yaraat leen ba pare soog leen bàyyiwaat foofa ñu ne ñu baal ma àq nag ñu baal ma ak waaye war nañoo xoolaat seeni comportement ay nit a leen di seetaan ay xale leen di déglu ak njaboota leen di déglu koo xam ne lañ la teg nag mënoo ko ay la yëban delloo ko nga dem ñibbi nga toog mag mu dem bay génnee aw saaga te xale lañ ko séentoo woon nga mën koo yar booba àdduna ngi tut wax nañ ni say ay maa mës na am gan ñu ne ko gan gi de benn cat la am mooy day day tuur ñam rek ñu bëgg daal mu bàyyi ko moo ne ah bon mu ñëw jox ko lalal ko añ jox woo benn xale ni ko kaay wettali góor gi jël yar nag jox ko góor gi ni ko xale bi day tuur rek fu mu tuuree rek na nga ko dum moom xale bi ñu ko booleel lañ ko jox yar ni ko bu xale bi tuuree rek dumaal xale bi te moo daan kat waaye ni mu sonne keroog def na la tuur ba tuurul waaw kooku bokk na ci waxoolu li naa xos na néew ko bàyyi tuur de waaye bàyyi loon na ko tuur par force yonent bi ni kuy wax na nga wax lu rafet wala nga noppi feuille de route bi laa nekk lii ñu ma bindloo lii ñu ñu jox moom lañ ñu sas nii nañ ko wax waxte buñ ko génn firaaw na keroog ba mu naan ana rabbukumul aala moom la yàlla njëkk a woon sirru nafsi taaraahul ayatul kubra mooy sirru nafsi bañ ko ko wadee rek fa kazaba dafa parce que loolu dafa am doole iblis li muy bon bon keroog dafa daw ñëw ci firawna ni ko li may bon bon bon musuma ñëw wax ne ana rabbukum ala firawna ni ko te ma koo baalu bokk mu ne ko non non garaawul ah yàlla de amul problème moom ma ngi koy gën a dugal moom ko loo ko firawna laaje yow Iblis ñun ñaar est-ce que am na ku ñu gën a bon ci kaw suuf mu ne ko ñun ñaar de kenn rek ñaar laa gis na ñoo ñu gën a bon ci kaw suuf mooy ñaari mbokk yu tudd yu tuddantewul lu ëpp ñetti fan ay mbokk yu tongoo xuloo lu ëpp ñetti fan li ñuy bon bon bon ñu ñaar ñoo ñooñu gën a bon waaye xoolal malgré que wax ji ni muy rëy rëy bi ba yàlla yónnee Moussa ak raka xam nga dafa leen ko quulaa la qawlan na bu ngeen eggee ba ca moom di wax ak moom na wax ak moom wax joo xam ne wax ju nooy la wax ju dul jam nit te fekk na mën na ko dégg xoolal teggin yàlla yi fa quulaa lahu qawlan layyinan nangeen ngeen wax moom wax joo xam ne mérite na ko kon la nga ca déggee mooy kilifa même bu juumee soo koy wax dëggit na wax ja tegu ci yoon na wax ja rafet waaye ñu ni kii kat moom mooy jiite ci eh, nit ñi wala kii mooy jiite ci jàkka ji wala kii mooy jiite ci nàngam nga mer ko jël sa wax waxe ko num la ma neexe ah kooku nag yàlla nee na ku bëgg a roy da nga roy ci muusa mii ak mbokkam mii ba leen yàlla yebale ci na li muy doon doon noonu yàlla nga xam ne ba léegi yàlla da koo bàyyi ñu koy mën a seetaan keroog bu mu bëggee bañ ko bëggee suul Firawna dafa ne ah, amantu billadi aman bihi bani israila wa ana minal muslimin yàlla ko al ana wa qad asaytu léegi nga léegi ngay soog a tuub mukk al yawma nunajjika bi badanika li na li takuna liman ko aaya duma la bàyyi suuf di la nëbb wala dene dama lay bàyyi nga doon ba àdduna tukki ku ñëw mën laa seetaan yow Firawna waaye xoolal la ko yàlla yóbbu te wa quulaa lahu qawlan layyinan beneen bi Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu bi mu nekkee Ndar peste pulmonaire am ñu sàkku ci ñoom ñu ñakku ñu ne du ñakku ndax xam ñu ñakk yi lu ci nekk parce que politique bu baaxul day jaxase sa peuple corona bi lu ne lañ daj pour nit ñu ñakku ndax ay nit boo leen dee nax loo yor rek ay nax lañ koy teg waaye bu fekkee farata rek nga leen di def loo bu farata ñëwee ñu def ko moo dañ ñëw ñu ñi day taal gétt ndar mu ne ko lu mu ne ko dañoo yaradi ko mu ne ko bu ko yow nga yaru mu ne ko dañoo xamade mu ne ko bu ñu xamadee yow nga xam mu ne ko indi la fi pour ngay taal ay nit lu may def nag mu ne ko loolu nga waroon a jiital moo tax sa yaay Mali stratège la woon nit la woon koo xam ne danaa jiital xelam ci lépp te yonte moo ne alxar bu xudaa guerre warante la ak naxante xool fi ngay jaar nit ki ba am ko rek mu ne ko da ngay bàyyi parce que wóolu la te xamuñu li ngeen di yor lan la bind ca téere tuddee ko as-silsilatu dhahabiyya wax ci yu bari ne walaysa ba'dal ikmal al yawma akmaltu lakum diinakum moo di teg te walaysa ba'dal ikmal illa al amal lu mat moom jëfe rek a ci xëy suba dem wàccee loxoom ni leen am na loo xam ni yonent bi moo ko wax pes bu duggee ci ab dëkk bu leen génn bu la fekkee ci biti bul dugg faju farata la jël mbaggam aj ñu ñàkk ko moom Maodo ñu ne ah Maodo Malick day ñakku na ñoom ñëpp daal dem ñakku ci karo moo tax tubaab bi xel la Sëriñ Xaaj ànde woon ak ñoom du ragal leen de nee naa leen kuy wasifa suba ko jot naan di muslu ci ñoom naan na auzu billahi min sharril kufaari wa min nasaara maa ngi muslu ci tubaab yu bon yii wa min sharri salaatini kooko boo koo ragal doo ko ko wax mukk ci àdduna waaye wax ju yiw xos naa ja ca la sukkandiku ba keroog gét ndar tàkkul ñu jël problème boobu féetale ko